asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin wala ngeen ñuy topp ci yeneen plateforme yi ñu ngi leen di nuy di leen ziar di am mbégte di fas yéene ànd ci tegtalu ñaan boo xam ne li ko tax a jóg mooy sàmm say njaboot aar leen ba duñu mooy yàlla rawatina mooy yàlla bi ñu tuddee azina muy adultère muy góor di mooy ak jigéen bu mu takkul walla jigéen di mooy ak góor bu ko takkul loolu la tuddee azina muy euh, adultère kon su fekkee bëgg nga yàlla sàmmal la say njaboot ba ñu màgg te duñu mooy yàlla nga xam ne bu dee góor gi dina màgg ba takk soxna te du mooy yàlla jigéen gi dina màgg ba ñu denc ko te du mooy yàlla loolu am na tegtal ci ñaan mbokk yi loolu aay bi ngay jàng muy wal ardo farashnaaha fa ni'mal maahiduun wal ardo farashnaaha fa ni'mal maahiduun moom ngay jàng juróom ñaari yoon muy sept fois nga tifli ko ci kanamu euh, njaboot gi kanam nag dañ ko tegginal bokkut ak kanam bi tekki visage muy xar kanam loolu xar kanam lañ koy waaye buñ nee nga tifli ko ca kanam ga mooy ca awra ba ca ba moo xam awra ku góor ki wala ku jigéen ki loolu nag li ciy tane mooy bi mu nekkee xale bu ndaw bi muy soog a juddu bi mu nekkee liir nga def ko waxuma itam ne bu la jamono jooju rëccee itam doo ko mënati waxuma ne bu màggee doo ko mënati waaye nag da defal ko xale moo gën a yomb defal ko mag waaw waaye daal dañuy wax ne aaya bii muy euh, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun ku munta liir araab yi tam ci français bi wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun nga jàng ko sept fois nga ëf ko nga wal ko nga ëf ko nga suufle ko wala nga tifli ko ci yi xale bi bu dee ku góor la incha allah dina màgg te du mooy yàlla ci dundam incha allahu rabbi bu dee ko jigéen la itam kadalika mbokk yi may fàttali ne nag may fàttali ne nag soo koy jàng dañuy bëgg nga ubbee audu billahi min ashaytaani rajim su juróom-ñaari yoon yi matee nga tëje allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim wala beneen suura boo man ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi abone leen ci chaîne YouTube bii di yaatal xel ci yéen di bàyyi xel waxtaan yi di commenté di aimé ndax fa la njëriñ yee gën a yaatoo jaa ngeen jëf